mbokki bitim réew maa leen di baaxee xibaar gu baax a baax yéen ñi nga xam ne da ngeen a néew kàttan maanaam impuissance sexuelle wala yéen ñi nga xam ne seen awra dafa nooy lool wala ngeen gaaw a yëg seen bopp kaay ma jox leen solution bi nu mu tudd góor day dëgër këj ak kan Serigne Cheikh Tidiane Niass waaw waaw sungu fak reen ak alquranul karim lay boole def mi nga xam ni dafay baax ci yow góor day dëgër këj bu fekkee sax rab moo la jàpp ba nga néew kàttan maanaam impuissance wala nga gaaw yëg sa bopp wala sa awra nooy nepp demal ci Serigne Cheikh Tidiane mën nga ko woo ci numéro yii ma lay bëgg a jox 78 362 44 44 wala 75 644 77 77 góor day dëgër këj ak Serigne Cheikh Tidiane Niass. ñu taxaw ak nag ñu ne bés du tuuti borom lay tollool nit jóge fu ne. ndax lan bésu Ablaye Diop xaas bi ku ne Ablaye Diop xaas ne senegal ne àdduna ne Afrique lan nga yëg tey ginnaaw ba nga tiimee sa doom tuddee ko maam Diarra. à part kontaan bég comme yéen it macha allah di leen masawu li metti na coono bi ñun ñëpp man maa ngi dama xiif xam nga xiif. xam naa gars yi dinañ ma summi ku lay summi ku lay summi maa yeey dama deful dara suba léegi mais vraiment kontaan nañu macha allah di rafetlu yëf yëg yëpp. waaw bëri gisuma caab bi waaw ah dégg ngeen macha allah. waaw wax looy looy ñi toog di la seetaan te xam ne amoo amoon nañ yéene pour ñëw ci bés bi te te ñëwuñu lan nga leen di wax à travers. waaw yé yéene yi yëg nañ ko xam nga yéene mënta weesu lii lii moo jiitu lépp ci àdduna bàyyi seen itte yi bàyyi seen soxla yi ñoom ñëpp ñëw vraiment ñun lii mënuñu koo fay pour nga xam yi mais euh, day day maanaam dañoo war a gën a góor góorgóorlu doon Baay Faal doon taalibe te xam ne lii yombul amaana nag du du du dara xëy na suñu borom a koy may mais daf ñuy soññ pour ñu gën a góorgóorlu lii rek la soññ si. ginnaaw bi coow li bëree bëri bëri bëri bëri tey Soumboulou indil la princesse lan nga koy wax. coow lee indi princesse bi kon na coow lu yokk rek ndax princesse yi yokk. waaye buy ba ñu commentaire ci yow nee na loolu Sénégal li fekk ñuy commentaire muy baax bu ñu noppee commentaire ci yow dara baaxul kon na ñu commentaire ci yow sëñ bi ñu ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp tey sant suñu mbokk mu suñu sëriñ su nga xam ne danoo dikk dalal sëñ bi ñu am ci biir wàccaat dem rawatina nag ko tuddee waaw suñu maam maam jaara dëgg fa yàlla tur bi sori ci man lool kontaan naa sama xol wax dëgg fa yàlla mbégte rek laa ci nekk ak bànneex ak princesse Mame Diarra ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan mu ko di leen yaakaar naa ni mu koy si sànni mooy waral na rek Ablaye Diop xaas sagal na la waaye yow nga ñu rek yàlla na bi barkeel te yàlla teg loxo si njabootam looy wax waa àdduna en tant jigéen di sëy am jëkkër ju mel ne ak euh, Alaaji Diop xaas naka nga koy doxal kër bu mel ne jigéen koy waxee ci lépp lu mu mën a ci moom loo xamante ne ne di chercher kon d'une part man maay toog ma moom jàppale ko soutenir ko ndax man xam naa ki mu doon ah? man mi sëy ak moom xam naa ki mu doon tey suma ma gënee sax wax dëgg fa yàlla yokk sama gëm ngëm ci lislaam yokk ko loolu sax ba gëm ko loolu moom da ci am part de responsabilité ndax daan naa julli woon dëgg la mais nga dégg nodd sax léegi demee too jug dem defi leneen lu dul jàpp julli waxat rawatina fajar nga yeewu di julli wala moom mu julli ba fajar di jàpp di di di wér di nga nga ko ciy gunge loolu bànneex la ku sañoon am jëkkër joo xamante ne ni tey da soññ di la di la di la di la bëmëx ci li nga xamante ne amuñu lu dul moom muy diine lislaam am gëmuñu ku dul Seydina Muhammad wax dëgg fa yàlla te moom wax dëgg fa yàlla dama koy sant di ko gërëm nee naa sama kër yaay yaru naa fa lool wax dëgg fa yàlla samay waajur yar nañ ma mais bi ma ñëwee dafa am lu mu dolli ci man. dafa am gis nañ la nga jooy lu waral loo yëg ba jooy. mbégte bi ma bi ma bi ma jox daf ma jox mbégte dama kontaan <laughs> dama kontaan trop. ci moo tax ma ak tur bi bu ma ko déggee ci kaw mënatuma loolu la. Eh, mënuma mënuma gis kuy jooy dara. mbokki mu déglu leen. rek bëgg rek laay yëg. macha allah kontaan naa bu baax a baax boo toogee ba sa rakk us doomam di ko ngénte doo am lu doo doo def lu dul bëgg rek ak kontaan maa kontaan bu baax a baax alhamdulilah. ñu tuddee ko maam Diarra ñu xam ne yéen murit saadeex piir ngeen seen biir kër lan nga yëg ba nga déggee tur kontaan rek wax dëgg yàlla kontaan bu baax a baax dëgg yàlla lii moom ak cant la tawféex la am doom ñu tuddee ko soxna si moom tawféex la dëgg dëgg dëgg maa ngi koy ñaanal di ñaanal. Euh, Euh, doom ji ak ay waajuram ñu am gudd fan am wér gu yaram bu ànd ak sutura ak teraanga ci barke Maam Jaara buri dem màkka ñëw ba tey kenn dégg ko kenn gisu ko mu muuru toog jàpp njaamuram géré xamul lu dul Balla gay loolu nan nga ko yéegi nan nga sentir ba def loolu ah noonu la xar day weesu mboto <laughs> xar day xar day weesu mboto bu buggee doon kuy am na loo am boo ci tollee toll nga ko rek boo ko dépassé tamit dépassé nga ko sant la rek loolu tamit ak cant la jagle la maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax di ci sant sama sëriñ waaw wax dëgg yàlla kontaan naa bu baax a baax. un mot pour Balla Gaye 2. I love you I love Balla Gaye 2 I love Habibi <laughs> ah waaw kontaan ci moom rek di ko ñaanal rek moom borom këram ñu toog ba njaboot lool macha allah ñu toog ba seen njaboot gi di leen teral sama caméraman jëlal ma sañse buri baal ndax orange la laal dafa def jongoma ma belli jëlal ci suuf yéeg ci kaw nga ne soxna si dëgguma la. ma ne nuyu nañ la sëñ bi Dramé lu waral teewaay bi tey ci bésu Ablaye Diop xaas beeg sumbulu ah, coow li bari na. waaw bésu mbégte la rek ñëpp ñoo teew fi rek ñëpp ñoo teew fi rek comme ni fi ñëpp dugg si rek. محمد رسول الله مالي جاري محمد رسول الله waaw li ma la wax rek bisu mbégte la rek mu yëgal ñu ko ñu ñëpp ñu ñëw teew fi rek comme ñëpp rek ah waaw sant yàlla képp ko xawale bëggoon ñu ñu wuy la ku xewle bëgg lu dul ñu wuy ci la kon bu ñu wuy see nga sant yàlla ab gor nag duñ ko cof dañ koy téye moo tax bi ñu ko yëgalee ñu bàyyi suñu téye yu bëri bëri daal di ñëw teew ci bis bi ndax képp ku xewle boo sawee ni ñëw wuyu ci la rawatina nag ngay jullit ñuy jullit mu bisu mbégte dañoo war a ñëw teew ndax ab doomu aadama buy dund dañ koy dañ koy dañ koy ñëw teewee si ay bisam bul xaar ba safaan ñëw nga doog a ñëw loolu dafay nit ak kiñaan moo tax dañuy ñëw ci ba muy neex ñaanuñ ko yàlla bu leen amee ci mu waat incha allah waaw loolu moom moom la. sa digganteeg Ablaye Diop xaar. mooy diggante ak ñëpp rek yàlla moom moo wax ci alquran ne julli ay mbokk lañ kon sa mbokk bu la da nga war teew rawatina mu woo la jabar kon da nga mooy nga teew donte amuñu jot amuñu temps mais mënuñu ñàkk a ci bis bi. <laughs> waaw sant ko yàlla rek kon tukki xajoo la ku mën bukki bi ci kanam moom la ñuy corné te dëkk bii ku tekkiwul dara kenn dul wax dara nit ñi ñaari leen dul xas ñaari leen dul xas ab néew ak ab dof képp kuy nit tekki dara bëgg baax ñu uluñ la gàllankoor rek ba nga yëg waaye yow mi ñu gàllankoor nag yaa am ko la ba yëg bi nga bëgg yëg ñu baal leen ñëpp jégal nañ li ma intéressé rek li ma nekk mbokki bitim réew maa li di baaxee xibaar gu baax a baax yéen nga xam ne da ngeen a néew kàttan maanaam impuissance sexuelle wala yéen ñi nga xam ne seen awra dafa nooy lool wala ngeen gaaw a yëg seen bopp kaay ma jox leen solution bi nu mu tudd góor day dëgër këj ak kan Serigne Cheikh Tidiane Niass waaw waaw sungu fak reen ak alquranul karim lay boole def lépp mu mi nga xam ni dafay baax ci yow góor day dëgër këj bu fekkee sax rab moo la jàpp ba nga néew kàttan maanaam impuissance wala nga gaaw yëg sa bopp wala sa awra nooy nepp demal ci Serigne Cheikh Tidiane mën nga ko woo ci numéro yii ma lay bëgg a jox 78 à 362 44 44 wala 75 644 77 77 góor day dëgër këj ak Serigne Cheikh Tidiane